jërë ngeen jëf mbokki làmb mbokki internet yi ñu xamante ñuy suivre fu ne ci àdduna bi ñu amati mbégte contentement bu baax a baax makan ñu amati mbégte bu baax tey seet si xale bi nga xamante mooy Youssou Ndour démb gis ngeen li nga xamante ni démb la am ci diggante Mor Kankang ñu bëri démb combat bu neex mu nekkoon démb la 27 ah mu nekk làmb ji nga xamante ni tamit bokk na ci démb moo tëj li nga xamante mooy saison bi nga tëjee ko victoire bu am solo téyee ko ak ndam lu nga xamante ni tey démb mën naa ne combat capital ngeen bëri démb stade ba neex ambiance bi ñu gis démb Guédiawaye gi yëpp tamit ne démb mobilisé ànd ak topp sa ginnaaw démb nga ñëw ci nga xamante mooy sa combat bi sa diggante Mor Kang Kang ginnaaw bañ la bàyyi nga nuyoo Youssou waaw ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi di sant sama ñaari waajur di sant fi nga xam fi ngeen fekk mi si la baraat mi suñu waa kon boobu ba tey booy ñëw leen di sonal di leen déranger maa ngi jégalu maire di jégalu paa yi waaw di jégalu ñëpp di ñaanal tamit ñëpp am jàmm waaw di géej gërëm géej waay bi di gërëm suñu waa dëkk waa waalo Rosso Xuma Dagana képp fu waalo waalo nekk rek maa lay nuyu di la sant ak waa Kolda waaw. Ah, nga nga Kolda ci bi. mun maa ñàkk ba ñu dem Kolda ndax dama ay goro faa ma dem Kolda. waaw. Mhm. nga bëree combat bu am âge. combat coow combat soog est ci làmb ji Youssou amoon na pression ci biir combat bi démb. non làmb ji démb mun ma si am ndax amaan yi fi am yëpp dem waxoon nañ ma ko. Mhm. yi fi am yëpp waxoon nañ ma ko ndax moo tax booy bu ñu bu ñu dee bu fa mor sànne dara. Mhm. ma leen bàyyi leen noonu. ndax waxoon nañ loolu rek moo nekkoon démb laamu ji. Mhm. ñoom bu ñu jëloon delloo delloo ko foofu rek làmb ji yàqu moo tax ma leen bàyyi leen ko foofu. waaw xëpp na ma fa saw. def sànn na ma fa ndaa def na lu nekk xëpp na ma gàllaaj mais. làmb la. dëgg waaw xam naa loolu lañ ko waxoon. boobu ñëwee tamit appliqué na Mhm. moom la këppee ndaali mbaa tiitoo fane mystique bi. non du ma tiit ndax lu ma dégg lu ma la dama la li yëpp waxoon nañ ma ko. Mhm. waxoon nañ ma yépp lu mu la sànni lu ne an la sa dal ndax xamoon naa dina ma sànni man bettu ma nekkul loo xam daf ma bett. Ah, luñ ma wax la waaw luñ ma wax la ma ñëw làmb ja gis ko mhm. waaw. mais démb est-ce que Youssou Ndour bëri bi nga bëri ak Mor Kankañ loo prépare la woon démb parce que démb combat bi ñu gis ñaar ngeen bëre combat bu métti combat bi gaawut combat bi am na xeex xeex ngeen ñaan nga yóbbu ko mu ñëwaat ci biir combat bi te sans stratégie bëri lan la woon. waaw man démb ni ma bëree rek laa war a bëree démb ni ma bëree rek laa war a bëree waaw noonu laa mënoon bëree tamit déglu ay conseil tamit ay kilifa conseil ma course conseil ma moom démb noonu laa mën a bëree. dëgg waaw dëgg démb nga ñëw démb ci làmb ji. Guédiawaye ngemb la nga ànd ak ñoom ànd ak écurie ba mais démb ba nga taxawee ci biir làmb ji Balla Gaye ñëw lan nga yëg te parce que gis naa nga jóge si tuus bi da wuti Balla Gaye am loo wax ak moom. waaw Balla Gaye moom moom suma lépp la. ndax daa jël sama papa tuddee ko boppam. Mm. tamit sama papa tamit ku ne xam ne amoon na cofeel si Balla maa ngi koy nuyu di ko wax mention spéciale waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wax jëm gis naa ko Mor Sakess. tamit dagg léppam. Mm. musuma sewal. musuma gàntal. waaw Sakess maa ngi koy nuyu bu baax at sama monument Guédiawaye waay mm-hmm. moom mënuñu wax ko bàyyi. Mm-hmm. te duñ ko nuyu. muy grand Lirou. dafa solo ci combat bi. foo xalaat fu ne dem nañ fa. waaw mais nag kenn du course. waaw kenn muy Lamine Golo waaw muy sama papa sama xarit muy sama lépp ndax moom maay sama wéeruwaay ndax nee nañ ko amul wéeruwaay ku ne da yombu yomb ma mais su kawam laa wéeru waaw maa ngi koy nuyu bu baax di wax kontaan naa si moom na jàpp rek waaw. dëgg la démb ñu gis Balla Gaye ñëw taxawut sa taxawaayu bàyyi taxawaayu père Balla mi ngi doon taxawoo Balla Gaye ca làmb démb ñu gis gee ñëw taxawoo la noonu ne ca wet conseil waxtaan ak yow ci làmb yu soulager la ba nga gisee bala Gaye sa xel dama dem ci sa papa. non si ba mu ñëwee noonu. Mm-hmm. yàlla xam nañ nag billaay walaay loolu tax mu gën a yokk jom. ndax image boobu daa xaw a ñëw démb si man. xaw ñëw si man. dëgg la moo démb noonu. Mm-hmm. mu conseil ma dama dalal. Mm-hmm. yow gaynde nga garmi nga. waaw. école mag nga nekk équipe mag nga nekk ay champion fa nekk moo tax ma dal taxaw waaw. nga ñëw dem bu bëri loolu. ma loolu yàlla may ma ndam waaw. mais ba nga wax rek ndax nee na kenn du xa ki gis kenn du gaaw gis defetam waaw loolu la na wax. loolu la wax mais bu mu waxati loolu loolu làmb la. képp kuy takk ngeen ko ne da daanu. waaw ndax koo jurul jëndoo hmm. ngeen war a jàmbaarloo hmm. doone man du ma daanu waaw mais maa ngi koy nuyu moom mbër la tamit moom mais daf ma umpale daf ma xamul hmm. moom mbër la mais xaw ma waaw <laughs> mais bu laajoon ñu fa jaar dina ma xam waaw waaw day tombe rek mais man visé ma fenn waaw day tombe maam adversaire foofu day tombe maam adversaire foofu xam tamit làmb ñoom ñoo fi nekk. waa bool ngay bëreel. tamit géej Pikine parcelle. waaw Pikine parcelle. mën a bëreel. kon ñooñu rek mën a bëreel. waaw. mais mais li ñaan parcelle la téye làmb ji d'accord nga loolu. ñu ni waa parcelle jamono ji ñoo téye làmb la ñu wax. waa parcelle dafa ñibbi parcelle. waa parcelle lu ñu téye làmb ji waa parcelle téyewuñu làmb ji. làmb jooju ñëwaat géej waay mais noonu la. waaw chaque at daa am boo xam ne. dëgg la ñoom ñoo nekk au fond. parce que boo waaw ay quatre vingt dix neuf jàpp deux mille nag dañoo rafetlu woon mbër. ba pare lu mujj yëpp géej waay ba pare géej waay combat yi mujj yëpp dañoo yàlla dafa def ñu ñàkk. waaw suma frère papa. waaw xam nga. dëgg la at buusita. waaw. mbay mbaytin mbay ñaari mbay. xam nga di leen géej waay mhm. mais déwén incha allah dinañ mànkoo ñëw nekkaat benn. Mhm. incha allah fan nga jëm. waaw ah, loolu ñu ma xëpp du dara. loolu ñu ma xëpp du dara. a ah, ku yaa ko man xaw ma sax lu ñu ma xëpp. waaw. mais mais Youssou fan nga jëm say adversaire potentiel mun nga delluwaat boo bëggee sax dugg Pikine gi fii am nga fi adversaire parcelle am nga fay adversaire et cetera et cetera. waaw comme lu ma wax démb rek. Mhm. nee naa leen man képp koo xam ne ku bëgg tëgg sama combat rek. Mhm. lamiñ a ngi nii man moom lamiñ ndax nit kenn du ko jiital parti ke faxasal mënu man lamiñ mooy sama kilifa mooy sama lépp te du ma dégg moom ku mu wax ma bëre rek ma bëre moom. mais bëgg sa xol bi am na ku ci ne. man ama ku ma bëgg. Ah, ku ñëw ku ne ñu ñu ñu bëree. mais soo soxla nag Moussa ma kan d'accord ngir Moussa Ndoye Youssou Ndour. ban ak ban. waaw. waaw. surtout moog double moteur. surtout moog double moteur. non surtout waaw man man moom ñëpp laa ku ñëw rek moom na staff bi nangu rek ku ñëw ma bëre moom ñooñu samay adversaire lañ mënu ma leen bañ. dëgg la ñoom tamit mënuñu maa bañ. waaw ndax bu dee victoire maa la ngëpp xam lépp lu ñuy jaay maa la ngëpp ku ñëw su ñoom ñetti ñooñu ma bëre moom. mais ba amoon Moussa mu gën a neex de. mais su amoon Moussa mu gën a neex. waaw day gën a neex waaw day gën a neex. <laughs> waaw boobu daa mel ne xaalis day bari. day bari trop. ma àggale yéene bi. waaw waaw Modou Dia ñëw. ngeen waxtaanee ko. Modou Dia. Modou Dia mooy loolu quoi. waaw daa xaw a de daa français te ñu man damaa français. mu mujj daa yaru. waaw te man damaa yaru ñun ñaar kon boo waa laamu ji neex. waaw mais tamit man daal maa ngi nii daal laamu daal laa ku ñëw ma moom. Mor. waaw du ne naa ay bëñam daa mat. ah est-ce de. 32 manqué na kay. waaw mais noonu la làmb la woon rek waaw du nuyu tamit suma papa Père Diaw ndax woo na ma conseil ma waaw Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ñoom jàpp nañ ci combat bi hmm. Aziz njaay Baye Ndiaye ñoo jàpp ci combat bi mais dégg man moom sam na dimanche la bis doxu suñu diggante ku ne xam nañ maay fils de balle fils de balle mooy man àdduna bi ñëpp xamee nañ ko ñu ñoo ñaari seex yi hmm. kon di ñaan seytaane bañ a dox suñu diggante ak sama rakk xam ñoo nekk écurie ba ku su mel ne Thiat Daouda Garga Papa Ndiago xam nga booy nekk école ba ñoom ñëpp démb dañoo ñëw at yéene barki alxuraan karim Thiat Daouda Fall maa nga ñaan combat mbiir ñëw yàlla na ko su yàlla suturaal may ndam ndax dafa am ndam waaw ndax ñu école ba bokk nañ tamit ñu ko gën a yaakaar waaw muy caat daawda faal. non Coly Faye amul danger. yàlla xam ne amul danger. jafe-jafe la amul danger. amul danger. Ah. day naxaate rek. waaw comme ñu mu doon jàppal tamit ñoom ñëpp maa leen di sant Aziz njaay maa ngi koy nuyu bu baax Pape Mama. Mhm. Pape Mama amoo fayam. Pape Mama fayam day yëkkati xaalisam su ma tëddee mu woo ma. yaa ngi dégg farandaw. Mhm. tamit jàpp si combat bi. andaw andaw moom su ma lépp la maa ngi nuyu andaw bu baax a baax at Ibou Dieng. mais autorité Guédiawaye dañoo war a gën a jàppale mbëru Guédiawaye yi parce que xale yëpp a bëgg a dem làmb ji mais demeewul noonu jamono ji ñu toll bii day seet si xale ndaw yi il faut ñu ñuy jàpp seeni i affaire dëgg la ndax tamit ñun gars dañoo war a jàppale ndax bu ñu jugee mbooloo mooy jug ku si mel ni Lat Diop jàpp na si ndax Omar mbay mi nga moo nekk géej waay di defar Omar Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax doomu nday Lat Diop lu mu jox Lat Diop mu jox Omar Mbaye lu jot nañ ci Omar mbay waaw du nuyu tamit Modou Gueye mention spéciale tamit Modou Gueye jàpp na si bu baax a baax a baax jënal na ma ay gu bee ak Alaaji Fall daf ma jënal ay bolo gu bee waaw ki may fayal Sall nag ama fay muy Ibou Dieng waaw di nuyuwaat ñëpp ñi nga xam ne jàppal nañu sama combat sama papa Abdou Tall Abdou Mbow. Abdou Mbow maa ngi koy ñaanal bu baax ak ñoom ndongoloo seen place gars maa leen di nuyu di nuyu suñu waa Igri Aziz Ndiaye Baye Ndiaye kooku maa leen nuyuwaat ndax ma ja combat dafa taxaw ba ñu suba la combat ay problème ma dem seen place ñu may ma xaalis kon ñooñu maa leen sant bu baax a baax a baax di nuyu sama booy nga xam ne boobu ba lekk ñu naanuñu man su ma taxee si làmb ñoom ñoo tax mais heure war na fekk ma ma dem sama yoon ma tukki bàyyi bëre mais tamit xam nga dangay nekk ñoom kon ñëpp am champion ñoom tamit ñu bëgg loolu maa leen nuyu bu baax booy sama booy koñ yi ak sama waa koñ fi nga xam ne fa laa juddoo muy bax daat gunaas guy ga diggante boobu laa juddoo waaw sama secteur la kon maa leen nuyu bu baax muy kocc waaw. mais démb la loo Ibulaay promoteur bi. waaw Ibulaay di nga ñaan laat jàmm rek. ndax promoteur yàgg na si làmb. stade musul mel noonu. mais yàlla may ko démb mu ñëw premier jour combat mu am loolu. kon ñoo ngi koy ñaanal ndax ndaw la. xam nga amaan na suñu morom la du suñu morom mais ndaw la ñoo ngi koy ñaanalaat. ah. <laughs> non man seexalaguma man daal ku ñëw rek. far naa ba bëre moom. du nuyuwaat suñu waa dëkk. sama famille yaay. sama ñoom di jaay maa leen nuyu bu baax a baax a baax. waaw ndax man sama maam moo ma yar. maa leen nuyu bu baax sama kër Ndiaye ñooñu maa leen sant ak ñi may àndal ñoom gàqute Samba Lobe Mbay Fall mbër ñoom ñëpp maa leen di sant ak alaaji non moom kooku du ma bëgguma sax di tudd si média ndax ku ne xam nañ sama diggante maan moom ndax ba sama baaba dund sama baaba daxaa woo na ko Youssou la toppee nekk champion barki alxuraan karim sama mbër day taa sax maa ngi sekk ma woo ko na ko lii ma ñëw woo fajal ma ko te yorul mais maa ngi koy ñaanal bu baax a baax mi maa ngi sekk booy ñaa kooku aw ma fayam waaw di nuyuwaat ñëpp waaw sëñ Cheikh boroom Canada ak papa Idi ak Ibrahima papa Ibrahima ñoo ñëpp ñoo jàpp si combat bi borom Canada sëñ Cheikh laa wax de jàpp na si combat baax a baax baax baax waaw at Ibrahima Niassène maa ngi koy nuyu Alim mbay jàpp na si combat Ibrahima tamit maa ngi koy nuyu baax borom Malika at Omar kii. Omar ma ngi koy bu baax a baax Omar jàpp na si combat bi waaw képp koo xam ne jàpp na si combat bi rek ak sëñ Mor. sëñ Mor mercredi ngeen waaw mercredi dañuy xaar foofu du yomb. yëpp mbëri yooyu yëpp am ndam. ndeysaan waaw jërëjëf Youssou. Abou kontaan bu baax di la ñaan yéen média yi ndax ñun tamit amuñu seen fay. amuñu lu dul yéen. xam nga ñu ne yéen ay frère lañ. waaw ku si xamul. ku ñaaw xalaat ku ne day yaakaar ne day na far si ay nit. wala léegi lii mais yéen faral leen si fenn da ngeen liggéey ñun ñëpp benn lañ. mais yéen a ñu bokk ñëpp benn lañ liggéey am na ñoo xam ne lañ. nekk si yéen. muy am na ko xam ne moom mooy loolu. bu nga tuddee sa gars yi yaakaar ne faral <laughs> ñu ne moom mais ñu ay magam la. dëgg la Pape doomu Serigne Ndiaye ñooñu dañoo yàgg nekkul làmb nii tax ñu xamante waaw du làmb mais ñu dañoo xamante waaw dañoo yàgg quoi suñu papa yi la at ñun ñu la ñoom waaw du nuyuwaat ñëpp du nuyuwaat suñu waa dëkk waa waalo ñooñ du ma fàtte di waa Bawol nag ñaanal nañ ma bu baax a baax ah, waaw dem naa Bawol mais Mor bu mu jàpp ni damaa dem Bawol ah. pour jaxase Bawol damaa de mbool ngir samay mbook yi fa nekk. dama fa am ay kilifa. ñu ñaanal bu baax a baax. di nuyuwaat ñëpp. waaw. waa diaspora bi tamit maa leen nuyu.